l'africaine africaine. Couture, une belle tenue augmente notre confiance en nous. Global Textile Asenfal, Parcel Assini, Unité 12, tu es tout Sénélec, déjà gros et demi-gros.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 Iba Couture, Yamina Collection, Bachik Universal, MK Besta, Divine Lingerie, Chalki Moda VIP, KMF Couture. moom man miis naa ay jëfam yi muy def duma déranger sax yéen lay déranger xëy na dama bëgg nga xam ni joojo mbaw may naa la sa baat c'est-à-dire maa bañ c'est-à-dire c'est-à-dire man la joojo de man la di tax c'est man ngay man ngay fase cest à man ngay fase maa bañ gis nga baat boobu delloo ko fi nga jëlee woon xamal ni duma ko nangu tasuma tey tasuma suba tasuma du ma ko nangu. mbaa xam nga li ngay wax. l'homme propose dispose yàlla ak dogalam jaam ak pexem simila gën a expliquer ma comprendre bu baax a baax. ma service sanitaire yi nee nañ ni que kër gi ma lu loué woon pour crèche bi respecté wul norme sanitaire yi lan nga bëgg ma expliqué waat la par rapport ak loolu. ah man kat dama jaaxle n'est-ce pas que yow avant ngay déposé sa dossier defoon nga prévisite ba lépp normal léegi nag lu ñu waxati. loolu ma jaaxal mais bon dafa mel ni Sénégal amatuma dara lu ma fiy def. li nga xamanteni ni moo fi indi won finalement dafa mujjee tak suuf. yow lo bëgg a wax na ah que jot na ma delu France li nii c'est un signe rien de plus. delu France. fa da nga faté ne ci id da nga nek may do du jël avion. eh yow régleel mën nga def lu la neex nak waye xolal na jaar ci yoon rek comme ni ma la ko daan waxé soo bëggee ñu dellu France amul problème mën nañ dem mais def ko ci anam bu rafet nu mu gën a rafetee rek parce que bu yàggee dañuy xëpp toor bi te loolu laay bañ duma ko nangu. suk fi ma tollu nii vraiment xoolatuma lu neex Jean wala lu neex Paul sama bu nag moo ma importé. ah ma ci alaaji njuga sax. Hmm? salaamaaleykum. waaw Ibrahima Khalil Thiam yow néew ma la woon koñ bi sax bëggatuma la fi gis nga am nag audace ñëw ba sama biir kër. loolu tam tere woon naa la ko bu ma waxati mama du ma sa yaay. nga baal ma mais tey jii fi génn te waxuma ak sama jabar. yow da nga am jabar. Ah. comprendre naa la xam naa ne saa yu xolu yaay mooy sot rek et puis man maa tooñ sa doom aussi. mais kër gi bu doon tàkk tey sax sapeur du fi génnee fii wax nag sama jabar. Eh, nettali woo ma kër gu tàkk de man dimbali ma. Hmm. ma may ma ma déglu Ibrahima Khalil Thiam lan la may doyee. déglu. s'il te plaît rek fais-moi confiance. lenn dinaa la ko xamal. fulla fayda soo ko dindee ci nit. yóbboo rey ko rek mu dee noppalu te xam ne amatul njëriñ xam nga fi may waxee dégg nga ma bu baax a baax xaayaan nag daal ku dégg séeréer taxaw fi affronté Soukeyna Aidara ba paré bëgg ni ma xujj say bët ma xol waxal lan mo la fi indi. fa je, je je sais même pas quoi dire bi may ñëw ci yoon li ma doon wax yëpp dama ko doon répété mais dama ñëw gis sa xar kanam vide d'émotion et ça me déstabilise. Ibrahima Khalil Thiam. Sois plus classe. Parle et ne me touche surtout pas. mais Faa man waruma laal sama jabar. teggil. Faa là. ma beneen xar kanam s'il te plaît Dorme, ma xas ma yuuxu ma wax ma lu neex mais reste pas neutre comme ça sans rien dire. Faa il faut nga wax ay nit yu soxor ay nit yu bon yu man ma lu tax nit ku ñuul soxor man tamit xawma ma lan moo ma dal lan moo ma dal xaw ba may gëm affaire lépp man la faa lépp man la say phrase àggul dafa mel li nga bëgg a wax leerul ci sa bopp remets-toi les idées en place soo demee ba xam li nga ma bëgg a wax nga vocal ma ko. Faa la anniversaire du décès maman Sohna May sunu yaay ju baax jooju nga xam ne féete nañu fu nekk Faa bis bi bu mosaan ñew benn nit rek lay gis mu may soutenir dima dima dima consoler muy yow Faa tey gisuma la ma ngi ni jaaxle naa Faa sonn naa fu ne dugg fa may wëndeeku. kii d'accord na si loolu sax mais jëlal xadi fa ñuy wàggaalam dañuy yëg ni que dafa bëgg a dem Canada ñu bloqué ko si ndax tàgguwu leen moom tamit xam nga jigéen nañu mel mu ne xaarul darati ay waajuram cause bi majeur na que dafa bëgg ka man ma jàppale ko ñu ànd dem def suñu étude après marié wu comme ni ñu ko yàgg réebee man ak moom léegi yow wala ko tontu après. Mana ne nun? du noonu àdduna bi lépp looy def Darut si amul waawu waajur dara du sotti te man moom sama fit mayuma may séparé doom ak waajur. Eh, ni nga defee ne ya, noonu la te li nga wax rek nga war wax léegi ani problème bi lan la. mais problème ani ah, que Xadi dafa xam nga ni mu mel bu màttee faa mu dagg tant amul lu mu am te man dama xalaat ni que bu loolu bu ma ko defarul te mu génn dem uti ko feneen. jàmbaar bàyyil di basé wu sa vie si ragal ñax xaw ma dara si mbëggeel de mais dégg naa ñu naan nit soo ko bëggee da koy jox laaf ak loo xamante ni day tax mu toog te du danga ne xarit daf la bëgg te pare na pour sayal la bu dee lu dëgg la si moom muy Sénégal di Canada. du dara si ñaan yu bëggante. alaaji yoo xam nga ni xale jaral na ma àdduna ak li si biir jaral na ma bofuwee samay principe même su fekkee looloo nar a tax ma bañ koo perte bugguma nag di séparer waajur ak doom c'est vrai mais si j'en arrive à cet extrême dama koy def. alaaji soo ko defee commettre l'erreur de ta vie l'erreur de ta vie la wax. La relation bu amul sincérité rek. am si relation. Aziz ça va. Tidiane yow laa xam tontu ma da xam ku la bëgg ba ngay joxe conseils. Aziz. tudd ma Aziz Aïssatou laa tudd bordel de merde. wesh. quel bain

sama maam tension bi sama ñoom papa moom rek dañ deful dañ maa mere ndax dañoo yëg sama partition laa yow tamit faale man ba ma la may jaxasoo. xadi man sama morom. man sa papa laa. waaw. waaw voilà. est-ce la dem sa kër. ki nekk la fekk te oculaire dañ lay may sa bébé boobu. vraiment Khady décret wu dawoo coow. walaay yow tamit nag. nee naa la saako soble laa sàngoo du ma nelaw na xet bi dara daluma xam naa lépp. walaay yow tamit nag. non su ma wax da nga may déglu yow tu n'as rien à dire noppi nga war a def. waxal. fan laa tolloon sax. bébé six mois bi. ndekete quoi yéen seq ngeen fi relation bu obanyan no ba ñaan dañ la koy may ak yoy quoi kon te ma bernde. lay gis nga bépp 6 mois boobu ngay wax man ak mom ñoo tolo sama morom la mën na ñew suñu kër wax ak sama papa te du ci am benn jeune te nak wax na ko limi kay wax de mom moo gëmul bo fit di nga ak papa sa di wax ko li nga wax boba loolu 6 mois boobu du am fitu tek tankam sama kër. la lay papa dire booy bii këpp gaal dinaa ko jub defes di ko bay. wallaay man la sax itam kaa waxul dama am benn souci sama maam ne daf maa bëgg yóbbu nangu nugu ba te man dama am sama projet ubbi sama salon te village bi bon boobu nan laa fay ubbee salon VIP. mais ubbi ko foofu nga foncé. laay man je suis sérieuse de tey moom nangu naa ko xam nga ma bëgg nga jàppale ma ma ubbi salon bi comme ça suñu ñu xamee man maa ngi si dara dinañ ma bàyyee wa waxu daara boobu. léegi yow la ngay xaar ci man. nga jàppale ma wala ma sori la dérangé wu la. nee naa nga bàyyi sa wax yooyu man lu mu mën a am nga jege ma ngi ko gën a. je t'adore, t'es mon ange. mais nag neexul ba neexul mais tu sens bon xale même ma génne sama loxo baax ma gën la serré sa bu fekkee chaleur daf may rey xam nga jëm mais xale yi wala la dara yow yaa ngi ñàkk mais j'ai le sang chaud te yow xam nga ne yàpp ci nga Kaya may dread. mais amul problème loolu du problème bu yoon jeexul waa xasiwul lu jeex un jour viendra. laay nag nànk-nànk tepp tepp moo gën yu gis am préliminaire waaye yow prix dib jour viendra mais demee ci def. loo bëggoon. ñu dem lekk-lekk jën yow moom ngay incha allah. mais su moom gëmu mën nekk parce que suba la sama anniversaire u décès maam bi te suñu kër kenn du nekk. mère bu baaxoon waaye yal na ko yàlla yërëm te xaree ko àjjana ko mais bon kon ñu def ko après demain.

cest à bukan bëggoon waxtaan ak moom ci mbiru jàngum Insa bi ndax Insa xelam dafa nekkaat pour dem jàngi bitim réew. est-ce que mën naa la ñaan dara. naa kay nga bëgg rek. gis nga wax ji ngay wax dama bëgg nga teg fële ndax léeg-léeg nit dina wax waaye fekk wax jotul mbaa wax fu mu ko warut a waxee te su boobaa wax ji du la jëriñ. dama ne guddi yuñ toll nii sa borom ka soxla na la lool. man mi waaw mat nga ko ndey su ko nangoog su ko nanguwul nag su la ko laaj ak su la ko laajul soxla na la lool. Pape Sall dafa ko daal mbaa jàmm laaj bi du man maa ko moom demal ngeen waxtaane ko jot na de. baal ni ngay waxee. ma yëg ci sama yaram wi ko ma ne dinaa génn guddi tey. soxna May bàyyil ngay waxe ma bëggoon daal nga taxawu xale yi la naqar yóbbaale mukk baja, leen bu baja, baja, baax So, baax. soxna May man biir na ma ni man maa lay njëkk a dee ñaan naa ko suñu borom ni dana ma ko may. dangaa gore rek waaye ay ati at ma tëdd mënalu ma sama bopp dara lépp yaa koy def. yaa ci xale yi kon yow yaa ma si ëtt bu jàpp njariñ li ngay wax déedéet baal li ngay wax soxna may yow ñaan googu de ñaanal naa ko yàlla mu ñëw ci man war ma xale yi yóbbante bi wàcc la ana xalin ak Sadiq Sadiq dafa génn خلي المؤمن له ايه يدجوني انا من بي فيبر باي واجو جسم بروم صح من ما يدغر جلد دو سالت انجاي بروح لولو باي جوي الحمد لله maa ngi sant yàlla bu baax a baax àddina ngi ñëw la fii kenn dëkku fi ba ma eta bi ma mën a waxtaana sama njaboot bala maa sama di ay xale nak di xale yu teel a xam àddina macha allah Naba yërëmal sa jëkkër ji di ko teg lu mën di ko suturaay. jëlal dëgg muy sa jaasi. dëgg dafa baax boo ko defee rek sonn di dige loo man mareen wàññi sa degere jigéen du wex Layla sama Layla sama princesse bul topp sa xol ba mu muur sa xel mi जलजल खावे jaga, जो jege say ya, en num seen jàng soriwul yaa leen di dimbale sang bi njaboot gaa aquí, bakir yaa ngi dégg dalal dalal ay eh, bakir dalal tuddal yàlla dalal bakir dalal bakir sama birbi. Masukkan. a s u k Juga juga. Notre série revient après la pub. Kadi dal mo bëri doole kadi saf sell te wóor. teraanga ak ponche la fek baax seetaan leen seen programme ak boisson ponche yi di teral gan ak di setal xol ak ponche rek teranga, fi la fekk baax. Inscrivez-vous sur Melbet en utilisant le code promo Marodi pour obtenir 200% sur votre premier dépôt. Pour que chaque trajet soit une victoire, rendez-vous dans les stations-service Orix, powered by Africa.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 السلام عليكم وخيدو ليك اندوكا دان دوغا فيني ان جام افيني نوفغول تيا انون خيري انكو بري بيك بي mën ngeen takk xale. xew lay def ça va. Comme une alarme. pardon. aussi longtemps que je me rappelle. 22 h je me mës a rek ou pas fatigué ou en forme Fin ou rassasié 22 heures je m'endors réglé comme une alarme non, le non, frère daan Allez depuis je suis venu mënatuma Je damay je suis 3 heures du matin mais j'arrive pas à fermer au pire maintenant que je suis venu feeñ sax toog sama néeg me suis wala lu may màtt. Massa lii lépp su ma sañoon daal Massa Khalil Massa. dem naa këram gis naa ko ou plutôt xool naa ko mais gisuma ko xàmmeetuma faawa Cheikh. On dirait que j'ai perdu ma femme à jamais. Un visage vide d'émotion. Mon mu xas ma wala mu dóor ma wala mu wax ma lu ko neex sax ma gënal mu bàyyi ma noonu sans rien me dire son visage était vide du amour du haine du dara lu feeñ ci kanamam jëm ci man mais bon

Je regarde yaa ko mën a pas pour ensemble mais devoir la ci tu lui dois ça. nan la. dama xam ne àdduna du dara ni ngay ni di conseiller di remonter le moral. c'est normal. ça me rappelle. complicité juvénile bi ñu amoon bi ñu nekkee xale. ki leen bañ ngeen toog leen yow yaa mën a toog bis yëpp gisuma la mere naa la. nu may ñëwee ginne yi. naka yaram bi. alhamdulilah. am nga sens soo sama mag di sama ah. yaay aaw buur këram ma daal di ñëw rek topp sa ginnaaw waaye nag ñii laa la indil fan yii yépp dañoo nekk di xuloo jubawuñu ànduñu te bi moom léegi vacances yi jeex mu dem Ndar Awa Cheikh moom vacances ko téye sama kër mu dem kër yaayam Ibrahima Khalil Thiam mi yaay borom bu vacances yi jeexee mu ñibbisiwaat. waaw lan moo xew. moo ma jaaxal. yaay awa Cheikh mii la ma ma bett ko mu toog ci kaw xalil xaw ma dakaa doon dee xaw ma mu mel ni ku koy bëgg fóon te mën a moom mosuñu def loolu. awa Cheikh. ma ne dañu doon waxtaan ci anniversaire surprise sa def bi ñu bëggoon def. day fen. Bambi. waa Bambi man damaa feebar de bu ma yëngal xale du tàmm wax yu ñaaw soo màggee loolu ngay loolu ngay continuer. netali baxul xale da ngay am sutura li bu la dalaatee de man bëgguma yu ñaaw yi bo bëgge ñu li bu ko defati de nga Xalilu laay mooy problème bi. Ndiaye tu dara bambi dafa fiir rek normal bo gos la <laughs> waye li Awa Cheikh wax moy deug dañ doon waxtaan ci anniversaire surprise Sadikh bi rek. lala la doon dee lala la doon dee ma fekk leen ngeen uufante nga naan anniversaire surprise. Eh, eh, waaye xam nga loolu. waaw may leen ñii de lañ nekk. léegi dégg naa leen waaye xam nga lu ma bëgg ngeen yaatal seen xol yi bëggante jàppante te yàlla rekk tax dama bëgg ngeen di jéggale te jëllale yéen ay xale ngeen. te ay mbokk ngeen xale mooy mujj doon mag wax bu ñaaw baaxul loo wax nit bis bu gisee ak yow xelam ci loolu rek lay nekk dee rafetal tey suturaalante baalonte leen àq te ngeen àddina amul benn solo du dégg ngeen ni yaa say daal li mu wax waa xale ban ban genre la ah lu ngeen wax waaye Bambi looy mer yow tamit xam nga Xalil mii sa jëkkëru yoonu yàlla la maintenant c'est à ton tour et toi la moo xew pourquoi tu restes seule ici xam nga dafay am kersa pour siggi xool ma wala bokk ak man néeg bi dafa rëy moo tax ma oyofalal ko ko rek mën naa gën tëdd fii ndax su dul loolu du tëdd te suba dafa war a xëy

lu tax waxoo ma ni tamit dina dellu soit samay loxo. ah bien sûr te delluwaat say loxo delluwaat say bopp bay say tànk. fàttewuñ ma li maa ngi nooree sama dund saa amul benn sens yow miy leeral sama xale yi soxla nañ la waaye man maa la gën a soxla fàtt nañ si teel yàlla dimbale ma pare soxna soxna ma bu ma def nii bu ma ọmọ olè ọmọ olè. fa yakul jëlal lépp delloo ci loxo yàlla ba ci sa jëmm ji ak sa njaboot doo ko mas a rëccu dangaa warta jooy nag sama noir bi ree rek laa tàmm ci yow ah Cheikh Tidiane kay toog maam si loo nekk naka yaram bi. ah ngi di màgget rek. yal na ànd ak yaram nga iya, yàgg di ñu gunge incha allah. gis nga gunge boobu moom moo gën a yokk màgget gi. déet waay xam nga ni dëgg laa la wax. ani ani tonto sadif, dama war a gisante moom dama ko war a defaral Seni rapport. ah sa nijaay est-ce que mais yow ça fait l'occasion am na bëgg ñu waxtaanee. ah wa bismillah. Euh, sa yaay woo na ma nee yow yaani mëna to dëkk ak sa bay waye man anduma ci ndax bay bay la ak nu mënti mel bay rek lay doon. am na nooy defee dafa mel ni yàlla ngay diir mbagg moom mi la tànnal bàyyi. dëgg ay kàddu dëgg rek nga fi wax waaye dafa fekk ni sama papa sama kilifa la e, dama ko war a jox cër waaye dina ma diis loolu jamono jii nii ndax lim ma def. maa ngi nii war a gisanteeg Papa Sadir si wàllum liggéey bi waaye ñëw bi ma ñëw fii waaj naa ko ba sonn ndax kersa te loolu yëpp sama papa moo ko waral. Iya, dangaa am xol nit nga dangaa yor xol di am yek yek. waaye na nga fexe ba sa yëg-yëg bum la ma sa jiital waaw soo nekkee ci bànneex walla nga nekk ci naqar balaa nga jël décision xaaral ba dal ndax léeg-léeg doomu Adama nekk ci bànneex digee loo xam ne mënu ko walla nga nekk ci naqar wax loo xam ne daf lay topp sa giiru dund doomu aadama avant ngay wax war nga koo xool ba pare gis nga xale nga nekk ci buntu àdduna macha allah yaru nga nangu nga liggéey sa tànk gàtt na am na doomu aadama yoo xam ne dañuy woor julli génne azaka foog ni ñoom ñoo gën ñi woorul julliwuñu génnewuñu azaka est-ce que xam nga lan moo gën a bon ci àddina mooy nga yëg say jëf foog ni yow yaa gën ñeneen ñi ci kanamu yàlla te yow ana lan moo la wóor ni yow yaa gën sa baay wuyu dama bëgg nga dal tey mel ni ndox. maaleykum salaam. Xadijatu. Tidiane ça va. nga toogal. naka mu. maa ngi fi moom. jël nga décision. yow laay waxal est-ce que jël nga décision pour sëy ak sa waaji lu ko moy rek nangu nubu moom dama soxla temps pour réfléchir parce que décision bi nekkul lu ndaw ah, danga soxla temps pour gérer sa temps wuyu ma semaine laa la may nga indi sa xarit bi suñu doyee ñu may la ko suñu doyul nag nga dem nangu nubu waaw yaroo ji foofu. maam man damaa sëkkee fii ay année di jàng ngir yàlla rek. Xadijatu yow nga nekk ak sa baay nekk ak sa yaay nekk ak man mi def li nga def lépp nga foog naa la bàyyi nga dem Canada soo wéetee xanaa dangay naaw su boobaa. maam eh ci delluwaat. kon yow jugoo si fooy xolu ñaata yoon laa la wax ni intéressé waaye Ousseynou bi nga jàppee homme objet secours nga war a bàyyi ndekete yow dara intéressé wu la lu dul yoonu kanadaa bi nga koy gëmloo ay waxu mariage. yoon yoon baa ngi noonu taalal ba sa kër bàyyi xaw ma waaye yow am nga lu la

Ça va bien. Ça va bien. Pas Je vais aller à la salle de la D'accord. Mhm. ngi fi. yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant yàlla Marème. Faare tey damaa ñëwoon pour waxtaan ak yow rekk nga jéggal ma baal ma àkk ci lépp loo xam ne mës naa la koo def baa mës la koo wax ci lu ñaaw nga baal ma mësuma woon xalaat ne Layla sama rak am na dina def lii wala mu waaw def lu bu njege lii kon maa ngi ciy jéggalu bu wér dina baalu àq. Marème naa la baal naa la si xol bu sedd guy ndax sama xol bi mu ko yenn benn sentiment bu ñuul dafa fekk ni nag danga maa bett rek te mënuma ci dara. mu ne sa dal na mënu maa sa xool la faa seytaane moo dikk rek jaxase ni seytaane fu mu xajul rek lay dugg fu mu xajul lay dugg madame wax nga ko waaye daf fekk ni wax ci moo eggul rek nee nga sa xel mayu la ngay xalaat ni sa deret sañ na def yenn yi mais may na la nga jàpp ni ko jàmbur am na sañ-sañ bi ay faa coow li coow li yëpp ak ñi ci sànni seen grain de sel ñi ci wax yow li nga ci wax ak li nga ci def moo ma gën a metti ay fa bu ma def nii baal ma ak ni fan laa koy wax ji bi gàcce maa ngi jéggalu su fekkee li ma la wax dafa diis ci mais li nekk sama xol rek laa génnee te ku ma xam man faa xam ne li nekk ci man rek laay wax dëgg la waaye faa ndey laa day sama lakk ko direct di dénkaane ci man foor lool sama yaay dénkoon ma ko ma bëgg ko lool mu sore sama xol hmm. Mariam dénk naa la Layla yaayam jur rekk la si am maa ko yor bul fayantoog mo nang ko def comme sa doom yaayam dafa napp ci doomam du ko yar waaye wóolu na ma ci ma wóolu la ci nga eggale yar bi nangu naa ko yaay booy <laughs> loolu rek moo ci lii lépp moo tax mu waaye maa ngi jéggalu fa baal ma ak Marème Leila li mu def waru laa parce que yow yaa ko yar wax nga ko yaay magam donc war nga xam ki mu doon faa dénkaane boobu moom laa sàmm tey ba tax ma nungul Leila lu ma nangulul benn mbindéef Faabintu maa ngi dem bala may jël sa temps yoonu jàmm ma dem الجول sa def doo xam man yaay booy baal ma ak yaay booy jàmbaabeel amiloo kenn àq man ne woon naa la loo ma mën ci def lu ñëw ak lu ñëwagul jàmbaal naa la la sa diir sa yaay dem na bàyyi ñu wax yàlla. Oh, aw seex man Ababacar Sadi Thiam li may xalaat sama àdduna yëpp di jaayante pour tere sama yaay sama yaay dem bàyyi ma léegi la laay def. sa yaay dem na. weil man meint für ach ja. ja. صديق جو joyo lainang ya dakhiala potun de pamalike yalo samiro sama dom sama sope dunda mata joyo moom lay jooy ndax yàlla ya fekk sa fan wu guddee nga am fo ma féete may maa dem nga day ni sa baayoo yàllaay buur dundal boo dundee ba mën liggéey feral samay dajale jaboot doom rëccul laa